salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw bu ma leen nuyoo am mbégte jano ak yéen saa su ne kon ni ñu koy defee toujours seen émission Leewtoo ak tey nag dañoo ñëw fi nga xam ne mooy Malika benn barak fekk fa benn jeune war a mën a toog waxtaan ak moom Mali euh, général Malika maa ngi lay nuyu. oui maa ngi lay fay ci loone maa ngi ci jàmm bu baax. na koy tey tawféex. Mm-hmm. ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yeneen bi di gërëm suñuy ñaari waajur di nuyu suma sëriñ si Ablaye Diop borom xaas di ko ñaanal yàlla bàyyi ko loolu mu yàgg te wér di waa Malika yëmbal buun waa Kër Massar waa alu ba ñaax waa montagne waa mbëbasan di nuyu képp kuy bëggee général ak suma am yi nekk si diaspora yi maa ngi nuyu ñëpp di leen jox seen wàccuwaay. général su ñëw ci suñu première question kan mooy général moom doo wax général tënkal ma ko kan mooy général. général benn xale la. xale boo xamante ne mën nañ ni dafa juddoo yëmbal màggee Malika yoroo Malika dëkk ci diggante yëmbal ak Malika su ma lépp fi laa ko defee ba ma xàmmee laa commencé génn. mais xaw ma woon génn ma doonoon xale boo xam ne tamit mën nañ ni jaar nañ école mais yàgguñu fa daan foowee làmb làmb nag mën nañ ni suñu deret la nekk ndax li nekk sa deret mooy li nga xam ne da ngaa xàmmee rek di ko def ndax dañ daan toog suñu koñ ñun ñëpp buñu daan foo foo ñu gënaan bëgg ñun suñu foo làmb la woon daan fooyee làmb lépp lu góor yàlla di def daal général jaar na ci. Mm-hmm. Mm-hmm. daataa ñu ñëw ci làmb avant ngay dugg ci làmb général lan nga jàng naa métier def naa tôlier presque def naa ko ay ay 6 ans 7 ans waaw par la suite nag laa jékki-jékki rek xam nga commencé di suivre làmb avant boobu ñu ngi doon fooyee làmb ba jékki gars yi xam ni kat man ni làmb ji ma nekk nii bëgg naa ko daal te am naa ci tamit gëm-gëm ñu xam ni liñ ci bëgg buñ ko bëggee am faw ñu jéem a concentré wu ci làmb ji bu baax a baax moo tax ñu xawoon bàyyi suñu métier mais ba tey su demaatoon garage damay liggéey instant bi ñu toll da nga ko bàyyi carrément. dem ci làmb bàyyi carrément dem ci làmb te yàgg na. ça fait dane yoo xamante ne fëgguma weñ. fëggoo weñ non non. bi ñu toll làmb ak fi mu toll est-ce que gisoo woon ne boole ñaari métier yooyu gënul woon. benn instant mais li may faral di wax rek benn taat moom munul war fas war mbaam. Mhm. te ku bëgg dara faw nga def dara. Mhm. tey jii élève bi ne moom dafa bëgg a jàng pour réussir ci ëllëg bu ko yàlla dimbalee mu jàng ba dem université bu ko bëggee booleeg leneen da koy empêcher. faw mu jéem a concentré wu ci jàngam ba réussir si ba egg ci li mu ci bëgg egg mën cee jariñu mais mbir boo ci nekkee bëgg cee jariñu faw nga fonk ko téye ko say fukki loxo bañ koo bokk booleeg lenn looloo ñu permettre woon ñu concentré wu ci làmb ji ndax boo xoolee liggéey ak sport yamuñu sport dafa xaw a sérieux boo ci nekkee foo nga concentré wu jox ko lépp lu mu laaj ndax bu fekkee côté làmb làmb entraînement yu métti lay laaj lekk ba suur am temps récupération mm-hmm. bu fekkee nag da nga bëgg di dem liggéey te xam na ni liggéey ouvrier dafa metti bëgg dem liggéey jóge fa dem entraînement bëgg a ñëw nelaw récupérer loolu mun a nekk. Mhm. moo nu ñu concentré wu ci làmb ji. concentré wu. Mhm. loo dugg na rek dina am lu ci neex wala lu la ci naqare mën nga ñëw jaar sa jaar jaaru làmb. waaw suñu jaar jaaru làmb doonoon na lu metti ah. ndax boo xoolee fii nga ñu fekk ñu toog nii ay jamono ñemew ñu fi woon sax jaar mhm. ndax ku ne xam na ni armée dafa duggoon benn baraak général dëkk Malika beneen mbër dëkk feneen ak feneen. te jamono débutant mbapat dafa metti woon ndax ku ci nekk mbër yi daawuñ sax am seen problème seen biir mm-hmm. mais da gis ku ci nekk sa xarit day xëccu naan diw moo fi nekk diw moo fi nekk bu doonoon loo xam ne dafa metti te gars yu bëri comprendre ñu woon mais yàlla dogal nag ñun mbër yi ñun ñi nga xamante ne ñooy ñooy lépp yàlla suñu borom suturaal ñu ba ñun kenn musul dundanteeg sa moroom lu ñaaw mm-hmm. man boog ñeme naa yëkkati suma loxo tàllal wax ko musuma dund mbër lu ñaaw musuma yéene mbër lu ñaaw musuma def mbër lu ñaaw ci metti woon na au bi ndax li tax mu metti woon mooy dangay nekk ci benn koñ bëgg dara ñi naan dina dem ak ñii du dem ñi naan est-ce que mun na ko munu ko. Mhm. souvent nga am combat da ngay génn sa buntu kër. Mhm. dégg ñu naan ah day dem rek ñu daan ko bu doonoon lu metti te jamono jooju làmb toloon na foo xamante ne dafa bëri woon ay affaire violence. Mhm. ndax jamono jooju da nga daan dem làmb say waajur boo taxee sax pour dem làmb dañuy tiit ndax da nga daan dem làmb xëy suba ñu ne jam nañ diw wala toj nañ bopp diw. wala nga dégg ñu ne diw ci làmb bii lañ ko defee lañ ko rayee mhm. ay nit ñàkk nañ ci seen bakkan mhm. bu doonoon lu metti man mii di wax ak yow bëre naa ci làmb ñu dóor ma ci jaasi bu doonoon lu lu yéeme te xëy na yàllaa ñu suturaal sax mais mën nañ faa jaare suñ carrière yàqu mhm. loolu tamit doonoon na lu ñu marqué loo xamante ne moom naqari woon nañ ci làmb mais nag sant yàlla xam ni nit ki li nga bëgg nekk ci di ci sonn tolof tolof boo ci am wala jafe-jafe boo ci am rek da ngay xam ne lii sa yëfi bopp la yaa ko bëggal sa bopp mhm. da ngay xam ne lu mënul woon ñàkk la rek mhm. mais dund nañ ci lu neex dund nañ ci lu naqari mais nag lu naqari loolu moo lay permettre pour nga egg ci lu neex quoi mhm. ndax xëy na ba muy metti moment boobu noonu bu ñu bàyyi woon toog ne dafa metti xëy na fi ñu egg si nii mën nañ faa sax bañ a jege dafa yegg si mais dañoo gëm suñu bopp jàpp rek te bàyyi ba yàlla suñu borom diñ ci suturaal boo tey nii may waxee yow. ci la neex noonu nag ku dund lu naqari di nga dund lu neex lan mool gën a marqué ci sa carrière. li ma ci gën a marqué mooy ma toogoon am ñoo xamante ne dañuy dañuy toog xëy na sax doo leen xam nga jékki-jékki ñu fexe lijjant bi am sa numéro. woola waxuma la sax Sénégal nekk ay extérieur woola diw damaa def lu tout am sa numéro dama laa bëgg dama lay seetaan di kontaan léegi man ma tëdd sama néeg toog ma ne waa man. nan la nit mën a toogee xam nga am si ñun benn benn yëg yéene bi benn yëg-yëg bi quoi te souvent day doon sa moromu góor wala mu doon jigéen nit di la ñaanal bay bay jooy quoi te yow doo comprendre des fois nit ne la jox ma sa numéro nga yaakaar ne ay affaire ak connaissance ak yooyu nga da ngay jékki-jékki rek ñu envoyé la loo xaalis boo xam ne yow sax da lay yéem quoi mm-hmm. yooyu noonu doon na ci li ma xamante ne bokk na ci li ma gën a marqué ak àll bi nga génn des fois dem fenn yaakaar nit ñi xamuñu la nga ñëw nit ñi songu la di la bëggee mm-hmm. fekk xam nañ la loolu vraiment lu ma neex la ndax xam naa ni làmb yokkal du apportel na ma lu bëree baree bëri ci suma life quoi mm-hmm. te xëy na bu dul woon làmb amaana général mën naa dund ba dee te ñu bari duñ ko xam mm-hmm. loolu tamit lu ma neex la waaw ci lu lay neex nag nee naa leen borom bitiku mbagg boo gis xool ba boo xubbee magasin nga fay fekk sa premier combat ko dundee waaw mu metti waaw lamb ju doy waar ah. ndax moment boobu commencé nañoo bëre mbapat def différence nit ñi commencé àngu affaire yi boo génnee da ngaa war a bëre arène coow li ne kur nga jékki-jékki ñu ne diw am na combat arène mu doon loo xam ne tamit doo comprendre. Mm-hmm. waaw ndax premier combat arène nga war a dem gëm ne tey ji da ngaa war a dem jàkkaarloog say moroom war a dóorante xam nga. day nekk benn défi défi la défi la daal waaw défi lay doon ci yow mais nag boo demee ba ci biir géew bi ngay xam ne lii nii affaire de wax ak yooyu rek moo fi nekk mais affaire de góor yàlla la da ngay dëggal sa bopp rek waaw yaa ma gën a xam dañoo sa diggante ki nga xam ne mooy armée ñi gis seen diggante benn amitié bu spécial bu nekk seen diggante fës fépp fu ñu gis armee gis euh, général fu ñu gis général gis armée mhm. mais loolu boo ko gisee rek mooy àdduna ñu mënta bàyyante dañuy fexe jàppante armé yàllaa ma booleeg moom muy suma xarit yi suma waay di suma grand armé suma grand la suma xarit la te buñ àndee loolu du feeñ ndax li ko waral mooy dafa am yëg-yëg ci man ba ma xam ko man it ma am ci moom yëg-yëg ba mu xam ko xëy na ba ñuy sax soo ko ànd da ngay gis gars yi da ngeen rusante des fois affaire yooyu mais li may maanaam amour bu ëpp ci sa morom des fois day dalay permettre sax yow doo ko mën a sax seq ak moom yenn yi mais mu doon nit koo xamante ne su ma toogoon fii di ko wax fi ba suba du jeex ndax li tax mooy nee naa kii ku ko mere armée ku ko mere da koo xamul billaay wallaay wa taalaay ndax nitu kase la li jëntiwul lu bëri souvent dama koy sax sonal yow armée mbër nga wala ndax xam nga xol bi dafa rafet que tellement que moom armée mooy mbër boo xamante ne amul sax temps wu toog di bàyyi xel moroomam tey jii buñ ko joxoon combat nii mun na toog sax ba bañ ne suba la muy soog a bàyyi xel adversaire am comprendre nga mu doon nit ku yaatu nit ku oyof nit ku bëri jàmm vraiment loolu daal doon na lu ma gën a neex ci moom ma xam ne tamit nit ku gëm yàlla la tamit en même temps doon na nit koo xamante ne daal mën naa ne jikkoom jafe na ci mbër daal. Mhm. ndax souvent dañ naan mbër sax day xaw am caay-caay ak affaire yi mais moom gisuma ci moom caay-caay xol bi dafa rafet. Mhm. yàlla xam na loolu di ko ñaanal jàmm bu baax di wax suñu ànd bi yaatu na ànd bi yaatu na ñun ñëpp ñooy ànd mafia lañ yor ay ñoom Papa ñoom Abandoy ñoom Nder ay Jo mafia bi ñoom guy 95 Boy Malika xam nga su ma limee damay juum ay Talla Diop suñu grand di ànd ak ñun duñu dooleel ñun ñëpp ñuy ànd ah jàmm lañ yéenante quoi vraiment mais nag armée yàlla dafa dogal moom su ma su ma dem sax entraînement bu ma ko gisul duma ma xaw a firi. foo ma xool ci lu mu nekk ba pare bu ma ko mënee dem jëli sax ne ko kaañ dem ñu jéem a dem entraînement mhm. même bu entraîné wul sax ñu toog noonu man daf may neex mhm. xëy nag loolu suñu borom moo koy def ko quoi mhm. général ñu seetlu ñu gis la nga nekk ci arène bi di di di di bëree lutte avec frappe mais ñu gis la nga nga miser ci lutte simple bi lan mooy lan moo ci sa favori ci loolu lan moo nga gën koo bëgg li tax ma gën koo bëgg mooy damaa xam ne ñun dund nañ risque bu ne ci làmb comme mbapat suñ débutat dund nañ ci façon risque bu ne jékki-jékki dem arène bëgg a jël loolu noonu teg ko nale te mbër dëgg moom pour man benn fan boo toog bëree woo ko pertement la te combat arène boo xoolee dafa metti souvent ngay mbër mu ndaw am lu bëri lu teggi sa ginnaaw nga bàyyi sa lépp ne làmb nga gëm léegi chaque dimanche ngay dégg ay làmb toog ne doo bëre pour man loolu pertement la te saison danga daan gis saison bu bëree ba bëri deux combats nga ci am ndax léegi làmb ji dafa saturé mm-hmm. promoteurs yi bëree bëriwuñu journée yi bëriwuñ noonu soo ci amee ñaari combat santal xam ne am nga lu bari léegi imaginal kuy compétir année bi yëpp kuy entraînement astafurlah kuy entraîné euh, année bi yëpp xëy saison bi nga bëri ci deux combats loolu est lu yoon la du bénéfice ci mbër mi mhm. moo tax ma ne ah pourquoi pas ay xale lañ ñu ngi entraîné yàlla suñu borom nañ tuuti kàttan baa ñu dem jaayante ko rek lu suñu borom defar rek ñu xam ne mooy loolu noonu loolu ñu ci poussé ah ndax laajal ki armée mën na maa seede ba ma ciy soog a dugg dama naan ñëw su lamb amee ma tax sama ngemb am naa ne boo xam dama ne ko mu ne ma lan ma ne ko ren dinaa yëngal làmb ji yaakaar naa ay ñoom joo pap guy gi boo yu bëri daan nañ ñëw ñuy àndandoo jamono jooju ngoon gi lañ daan dem dindi man leen déwén yàlla xam nañ dinaa yëngal làmb ji te tegu ma ko woon fenn xam nga fa laa tegoon liggéey ak gëm-gëm ndax moment boobu dama doon demantu comme su ma déggee làmb ma dem nag ba xam ne lii nii teraangaa ngi ci mën a xaaral su ma ci dëggalee sama boobu lépp lu ci góor yàlla di am war naa ko mën a am mhm. te yàlla xam na ni moom mën na maa seede année boobu ma koy wax ci laa am bépp titre ci làmb ci laa ko am. nga sonal fa ëbbali. Mhm. daan fa rëg rëg. Mhm. non yaatu na ñun moom suñu biir boo xoolee du sax bëgg faral di lem di lim ci ay affaire de bëre simple xam nga lu tax. Mhm. dafa yaatu tey mën ngaa bëreeg nit tey léegi-léegi daan ko samedi nga xëy dimanche ngeen daje mu daan la. d'accord ci loolu la jëm ndaxte dina foo xam ne bu fa tolloo. ci kaw a kaw. Mhm. est-ce que di nga mën a di bëree bëree simple ba léegi. waaw ça dépend rek ci tolluwaayu làmb ji ndax boo xoolee tamit làmb ji bu dul dara sax même boo ci amul xaalis da lay dimbali sportif boo bu mu munti doon kii compétir ak ku compétirul yamuñu te saa ne booy compétir da ngay gën a am sens ci sooy combat ndax doo perte repère te lépp li ngay def wala lépp lu nekk ci yow di nga ko mën a tenir. par rapport ak nag nga entraîné ndax souvent mën nga sax baisse forme te doo ko xam. Mhm. mën nga perte repère ci làmb te doo ko xam mais saa booy compétir yow loo manqué yow di ko xam. Mhm. moo tax nag ñun ñu ngi ci daal bu suñ borom ne woon suba ci la suñu compétition di yam mën nañ koo arrêté. Mhm. mais it bu suñ borom dogalee ni tamit affaire yi dañ ciy continuer ba ci kanam mun nañ cee continuer. diggante ak Obeuli lan la. <laughs> diggante <laughs> la mbër laa comme comme mbër yëpp xam na xam naa ni ñaaxul ni moom ci dayeg général ci làmb di ko jéem a imposer yenn yi moom da koy neex mm-hmm. waaw xam nga mbër mu ci nekk am na mbër yoo xamante ne dañuy profito ci sa ci ci la suñ borom dénk xam nga am na ñoo xam ne tey jii boo xasee ba def dara rek mbër yëpp yow la ñuy ciblé mm-hmm. te ñàkkul ni yow ba ngay def dara ñoom boobu ñoom ñu ngi bàyyiwuñu la sax xel mm-hmm. mais li am solo mooy àdduna moom da ngay gëm sa bopp man bañu ma loolu mbër mu mënti doon bu ma gisee su la neexee buñ dajee ci làmb tëkkul def lu la neex mais ku war a bëreeg général ci biir géew boo jàppantee di nga xam ni général du xale wu kenn. ñu foofu ci weewu béy rek rek mu ne bàyyi na bëre simple ginnaaw te yaa ko mujjee daan. Mhm. nga yaakaar ne loolu nekkul ci defet bi nga ko daan la wala. noo gars yi moom ku ci nekk ak li ngay wax ah, loolu xëy na moom loolu suwaaw boppam la. Mhm. mais souvent làmb dafa baaxoo signalé gauche jàdd duraat. waaw te fii làmb ji mbër yi léegi xamante nañ quoi gars yi bëri na ci ñoo xam ne boo leen laajoon dañ naan la ax ah, man instant yi compétiratuma te bu làmb amee nga gis leen ñu tax ngemb mais xëy na loolu ñoom seen suwaaw dañuy njuyaate daal bañ ñu xaar leen bëri na ci làmb dañuy bañ ko leen mystique wala non ça dépend fii moom yàllaa fi nekk am yàlla yàllaay buur ñaax yàlla yàllaay buur mais da ciy am loo xam ne moom bu la ko suñ borom nattoo da nga koy accepté ñun làmb lañu suñ borom too bàyyi ñu ci xel kenn sóoraale ñu ci kenn tamit mhm. yéen a ngi bokk fi ngeen xam ne mooy seen seen seen territoire national sax laay wax ngeen fay def compétition ki nga xam te ne Reug Reug mu ngi génn au niveau international dem hmm. di di compétir est-ce que pare ngeen pour dem. bien sûr ndax mooy comme li ma doon wax rek comme ñun làmb mooy suñu métier en même temps sportif lañ te yëg naa ni man ci àdduna amul benn sport bu gën a metti làmb. ndax boo xoolee làmb mooy sport bi nga xamante ne da ngay taxaw jàkkaarloog su morom di dóorante hmm. amul sport yu ñu ko autorisé ñu koy dóor loxoy kase. kento lii. foo gis sport boo gis mu am xeex dinañ laan la sol dañ lay permettre nga sol gaaw. te lamb da ngay gis lii la ñuy dóorante kon amul lu ko gën a metti comprendre nga kon tey jii bu ñuy suivre làmb gis yeneen sport yoo xamante ne war nañoo mën a apporter dara pour pourquoi pas ñu ko gisee dañ koy dem def defi. ba léegi ngeen dem jëli coach international jëlee ko ba France indi ko mu leen di entraîné li nga xam ne mooy Bosco. Bos mm-hmm. mm, Bosco. Mm-hmm. Box. <laughs> Mhm, c' est bon. waaw <laughs> ah, ñu gis ngeen jërëjee coach ba France ah, mu leen di mhm. entraîné nga xam ne mooy Bosco. waaw. box box. dinañ la comprendre box. dinañ la comprendre bi moo tax. yaa ngi ah, dégg box box. ngeen jërëjee coach international mu leen jàngal nga xam ne mooy xeex lépp loolu pour lan la pour arène bi la wala da ngeen pare pour dem. yóbbu seen talent au niveau international. waaw loolu la nag dañoo pare pour yóbbu suñu talent au niveau international ndax li tax mooy nit ki boo jàngee sax ba toll fenn fi souvent war ngay jëlaat say say mbir dem gëstuwaat loo xamul woon ndax xam-xam du doy xam-xam kenn mënul taxaw ni fii la yam mm-hmm. sport tamit noonu la mel boo ci tollee loo am ba ñëpp ne lii nii sa mën na ko jéemal a dem jàngi loo mënul mm-hmm. pour ëllëg ak ci biir un jour viendra mën nga cee gis mm-hmm. njëriñ ndax on sait jamais. kii nag yàlla dañoo booleeg moom muy suñu xarit daan nañ déggante lu yàgg. mu toog ñu waxtaan mu ne non pourquoi pas mu ñëw. partager ak ñun talent bi nekk ci moom ak xam-xam bi nekk ci moom ñu ne ko ñun amul benn problème. ndax moom it xam nga yàlla dogal na ni li muy def mun na ko te it ñun doy nañu te amaana ci lii lañ nekk. li muy def ci ñun xëy na ñun suñu yokkute la ndax moom li muy mën mën na ko li muy xam-xam na ko mais ñun it bëgg nañ ëllëg ak ci biir kat bu ne buñ nañu beneen sport bu bokkul ak làmb duñ ne xaaral ñu dem jàngi ko wala ñu dem wari ko bu ko waxee rek fekk ñu pare buñ nañu woon suba ñu dem yéem a imposer loolu mm-hmm. Mm-hmm. dañuy dem ba international làmb ji Sénégal instant dafa tax a témbe kenn xamagul fa la ñuy taxaw est-ce que pare nga pour dem Gambie dem bëri ji comme yeneen bëri ni ñu koy defee waaw ñun budul dara Gambie yàgg nañ faa dem mm-hmm. Gambie suñ dëkk la ñuy mboq a ngi fa suñuy nit a ngi fa suñuy am di jàmm a ngi fa. Mhm. man ba may bëree chef de l'état Gambie laa ko préparé. Mhm. maag sama gars yi ñoo àndoon dem préparé ko. Mhm. waaw ma gis ci suma bopp bu baax a baax bu ñu tëjee Sénégal tamit ne làmb amu fi. ñu gis ni feneen làmb mën na fa am dañuy dem feneen ah dem compétir waaw. bu ñu jógee Gambie dañuy ñëw fi nga xam ne mooy Sénégal. est-ce que làmb fi ñu toll ñu naan huit kilos la ñuy duñ ko bëri est yow mais huis clos est-ce que bokk na ci luy luy luy dundal làmb. mais am on n'a pas comme mbas bi moo fi nekk Covid bi moo fi nekk on n'a pas le choix. waaw mbas bi moo fi nekk de mais xam nga lu ci nekk dafa am lu moom. Mhm. ndax làmb ni muy doxee. Mhm. man boo tëgee làmb huis clos rek yaa ngi ci tànku rey làmb quoi. Mhm. ndax huis clos làmb dafa am donte sax bëre bi ñëw dóorante bi mooy làmb ji mais dafa am leneen luy xew ci biir làmb ji balaa bëreeg dóorante. te am na xaaj bi yëpp yi suivre làmb looloo leen ñor. ambiance bi ambiance su làmb. daw jaay supporters yi nga xam ne chaque jour dañuy xëy di jàkkaarloog yow ci koñ bi mhm. sa entraînement yi nga ñuy sonalee lan nga war a wane ci làmb ji tey. Mhm. xam nga dafa am ñoo xam loolu lañ namm ci yow. Mhm. mais nga def wiikuloo ñi nga xamante ñoo doon. sonn mbër ba mbër yi promoteur ba ba. waaw xanaa ah, moom ma ci jaaxal. doon li nga xam ne tamit même buñ ko accepté lu làmb dara ndax mënuñu see jaay suñu image ndax dafa am loo xamante ne ñun moom la ñuy wane ba tax image u làmb ñu mun koo jaay mais boo ko defee wii kuloo kan ak mbër mi buy bàkku ñan ñoo war a yuuxu sa chorégraphe da nga daan def di xalaat boo ko defee mu yëngal say supporters kontaan ci loolu mais boo gisul supporter chorégraphe boobu kon jarul nga koy def am déet wii kuloo daal man vraiment gisoo ci sa bopp gisuma ci suma bopp nga am ki nga xam te ne mooy fils de Balla noo koy waajalee fils de Balla man maa ngi suma bopp di waaj comme ni ma daan waajalee comme yàlla dafa dogal. Mhm. lii lañ suñ borom nattoo du duma ci xaar ma xëy ku naan ma demal def ci lii wala demal dox ci lii. Mhm. saa yi ma xëyee li ma war mooy samay entrainement dama ciy nekk comme ni ouvrier bu ci nekk xëyee war a dem liggéey sa liggéey maçon bi ni muy xëyee dem liggéey. tôlier bi di ko liggéey mécanicien bi di ko liggéey élève bi di xëy gàddu kayam dem jàngi man bu ma xëyee noonu laay sangoo ba set jël gàddu samay bagage dem entraînement su ma ñëwee nag moom mooy loolu noonu. ba tax na lu ñëw rek day fekk man mooy loolu quoi. Fils de Balla nee na raqam nga dalay ñëw nax la comme sama petit frère daal di ñibbi yow nangu loolu wala da koy jaay doole xale bi. raqam laa. nee na raqam nga. moom moo la wax loolu. Fils de Balla moo ne. Mhm. yow raqam nga. waaw mhm. mhm. ah, baax na na jàpp raqam laa ba ba. bu jàpp loolu supporter ñu lay déglu. xool moom na jàpp ni raqam laa ba bis ba. fi réew mi toll. fi jamono bi toll. général waxuma la sax raq du booyu benn mbër. ndax dama dañ maa yónni yaa ma. waa Malika nekk sama ginnaaw waa benn baraag waa yëmbal waa Kër Masaar waa buun waa àll ba ñaax waa montagne waa mbëbës waa caara yi ñëpp di ñu bàyyi xel nekk suñu ginnaaw di ñu dooleel nga taxaw naan général sama raq la wala sama booy la xam naa loolu dañ koy wax pour bégal amateurs yi rek ak ñu leen di bàyyi xel. maa bëgg nga jàkkaarloo caméra bi. ma ni général. fi li nga li wax Fils de Balla la mu yëg ko. non Fils de Balla su ma koy wax la laa koy wax làmb amul dara. xew làmb dina am parce que seen combat taxaw na war bëri jàkkaarloo ma ko. ñun daal boo bëggee dégg-dégg. ñu ngi ci lu ñu xam li la war def ko moo gën ñu woo la naan la lii moo la war. Mhm. en tout cas ñu ngi si lu ñu war yàlla nañ suñu borom dooli sutura. defal ñu jàmm ndax liñ nekk dañ koo bëgg te bëggantuwuñu ko. Mhm. jàpp naa ne nag moom sama moroom bu ma war a bëreel ak ku mu munti doon foo xam na nga dem te xam ni suma làmb du yomb. Mhm. bu dee xeex dinañ xeex ba mu neex bu dee bëree di nga bëree ba doyal. noonu la demee nag. lan nga wax say support dañuy jaaree fa tëj émission bi. samay supporteurs maa ngi leen di bëggee di leen jox seen wàccuwaay naan leen aw ma ñu dul képp kuy sonn ci àdduna di gestu di gis ñi lay poussé ci li nga nekk ñooñu amoo seen fay. Mm-hmm. te supporter moo doon li nga xamante ne mbër amul fayam. Mm-hmm. supporter moom mooy ñëw fekk la ci koñ bi mbër foo jigee nga ne entraînement mu ne la am lii ndekki ci. Mm-hmm. mbër foo nga ne entraînement ñu ne la am lii reer mbër bàyyi gis naa leer rafet na de bàyyi mbër am solo lii. supporter moom mooy doxeek noonu ak mbër. nga amaat combat ñu dem defaru seen i tiset man am naa sama booy am na ay blouson wu 15000 francs la ñuy defar. yàlla xam na loolu boole ko. cotiser jàpp ci làmb ji côté kaar ak affaire yooyu demaat stade jënd seen billet est-ce que kooku mbër mën na koo fay. mënuñu leen fay su may supporters yi maa ngi leen di bëggee di leen tiitaroo 100 pour cent général bi. maa ngi leen di bàyyi xel ci whatsapp bi gis naa ni ngeen koy doxalee maa ngi leen di béggee di leen jox seen waay ci waay bu wér a wér naan leen ñun yéen lañ am amuñu ñu yéen képp kuy nekk si mbir di ci sonn boo ci gisul woon ku lay poussé wala di la jàppale boo matul bàyyi nga ko bu yàgg dem xooli leneen mm-hmm. te supporters yi na ci dara suñ toogee entraîné da ngay gis dañ lay woo waa mais gaynde ndax entraîné wu mm-hmm. ñoom saa su ne daal dañ lay gis ngay nekk si état seen xol di féex seen xel di dal mm-hmm. kon nag supporters yi yàlla na seen yàgg di leen wax ñun yéen lañ am amuñ ñu dul yéen jàpp leen taw bàyyi rek te xam ni léppay baax bu soobee yàlla. di la kontaanee di la bàyyi nga tàggatoo ak internet yi. waaw di santaat yàlla rek di nuyu suñu gaay yëpp di nuyu suñu copain bi ñu fekk fii tey daam mm-hmm. moom it suñu waay buy sonn ci ñun duñu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ak gaay ma fekk yëpp ñoom joo sama gaay yi mafia bi xam nga nuyu ñaa ñëpp jox leen seen wàcc waaye di nuyu suma grand frère daa aw ma fayam di nuyu suma xarit yi may àndal mm-hmm. ndax dañ may jàppale biir ak biti ku ci mel ni ñoom jaal ñoom daawda kaana suma staff bi xam nga ñoom Mamoussa ñoom Ahmed Diop ñoom Tafa Soumaré Seri Sona xam nga. gaa yëpp daal ñoom seex Tidiane xam nga gaa yi booy may àndal yëpp daal nuyu naa leen jox leen seen waa ci waaye ak suma copain yi nekk ci diaspora bi. ñu ñuy jàppale ku ci mel ni suñu doomu ndey Modou Kane borom Italie borom Rome kooku ñu ngi koy béggee bu baax ndax naanaan la. mu ngi ñuy jàppale biir ak biti. kon ñu ngi koy ñu ngi koy siyaar comprendre nga Ahmed Fall Zoungale aw ma fayam. Eldu maa ngi lay bëggee yow it bu wér a wér a wér amuñu sa fay mafia Italie beeg Espagne bi daal gars yi nekk ci diaspora bi yëpp di ma bëggee maa ngi leen di nuyu di leen jox seen waay ci waay su ma benn père père kamu moom it daf may jàppale bu baax a baax aw ma fayam xam nga Pamataar nag borom si pénitence moom it maa koy nuyu ak waa agent dizaine bi yëpp waa Gëltape agent dizaine yi maa ngi leen di bëggee yéen ñëpp ndax gis naa fi ngeen ma féete saa su yéen a ngi may ma jàppale quoi képp kuy suma nit maa ngi lay nuyu di la siyaar di la jox sa waa waaye di wax ni kàddu gi bu jaaree yoon ñàkkul ni suñu boroom la bu dëngee nag suñu ñàq ñàkk matadi la ñu ngi tuub di jégaluwaat ñëpp di baal ñëpp àq di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. général da may baal ak benn deux minutes am na ko ma ne <laughs> an sa soxna nga jabar. jabar mu jabar jàmm. Hmm. man damay toog ci bi naan no femme no film y a pas de maladie j'ai travaillé pire et dire. pourquoi amaguma jabar xale la looy xaar mataguma takk jabar. mataguma takk jabar. jaajëfal naa kontaan naa ci yow dégg merci beaucoup. ci yow tamit ci yow. da ngaa direct moo da nga neex ma barke Serigne général bégg naa baax kontaanee la ah. Mhm. yombal nga ñu invitation bi merci beaucoup. ñu ngi jaajëfal ñëpp ah jaajëfal mbokk internet Leewtoo TV lii moo nekkoon li gën a fës ah. général lañ leen indiloon jaajëfal sama caméraman bi Mansour bëgg naa la moomoo maane loo dawlul baaxul Yacine Fara sama caméraman bu ñaawul bi Ami Ndiaye kontaan naa ci yow gis naa commentaire yi yëpp jaajëfee naa ñu ma fekk ñëpp bëgg naa leen ëllëg incha allah beneen yoon.